Euh, salaamaaleykum euh, Yeumbeul Sud salaamaaleykum waa Sénégal yëpp euh, maa ngi nuyu ñëpp mm, surtout ñu yeewoo fii ci yëmbal Sud ak Yeumbeul Nord école baa ngi nii fii mooy école franco-arabe Mouhamadoul Moukhtar ñu créé ko en 2015 yaakaar naa ne yàgg na yàggul te ñaan nañ suñu borom mu am ay 50 ans yoo xam ne jëm karam rek waaye du dellu gannaaw mukk voilà école bi na gis ngeen ko du leen ko wan. mu ngi euh ba ci bir classe yaa ci biir tout ça vraiment avec gis couleur bi vert blanc bi mom moy signifier euh, couleur de l'islam yaakaar naa ne loolu du ko sax euh, war di expliquer parce que ñep xam nañ ko euh, bo gisé li nak taxaway bi ni man ak sama secrétaire c'est lui c'est elle qui gère la direction mu ni donc présentement elle est là tout près de moi donc dañu waajal ben programme bu m'agamak a mag

ci école bi rek le 27 28 incha allah programme ren am na ay changement yu rëy yu fi nekk euh, am na ay uniforme yoo xam ne dañ ko ci def ci programme bi uniforme boobu noonu élève bi moom lay sol buy ñëw bu euh, bu école tëjee moom lay euh, denc buy inscrit waat demin moom lay indi incha allah si kàttanu suñu borom donc ñu ngi ñaanal ñëpp ñu yàlla may ñu tal ak fekkee bañ fekkee le 27 28 suñu bës la ñëw ko moom di ci woo nag responsable politique yi nañ si jëmbal yëpp.

mu am lu mu indi lu tuuti rek ci ci ay changement yoo xam ne am na ci école bi incha allah ci wàllu uniforme bi ak euh, naka la programme programmer euh, programmer incha allah le bi am na tout lu mu ci xam ne ko incha allah bisimilah madame. Ah, d'abord damay nuyu ñëpp aussi yéen tamit ma leen remercier si seen seen li seen liggéey bi ngeen def ngeen ñëw jaar fii waaw. pour publi pour publier aussi suñu programme bi nga xam ne moom la ñuy jëlee jëmee si weeru juillet bi. 27 28 juillet moy conférence bu mag bo xamné école Mouhamadou Moukhtar mom moo koy organiser ah ñu bëgg tamé wane lépp ñu luñ jàng ci 9 mois yi xalé yi ñu bëgg ko won sen parents yi ñu wane leen ñun dañuy jàngale mais ñu donc comme niko ci am waxé rek ay changement da ci am uniforme yi mom lañuy def uniforme yoy non buñ ko andé si conférence ñaan nañ déwén mom lañuy inshallah kon bu jënd blouse du jënd mais uniforme lay jël comme blouse euh, uniforme sécurité la man dama gis tamit dañuy jël blouse que uniforme mom, donc ñu décider bien vrai que metti na trop sax mais ku bëgg dara yaay deg dégg tax ñu bëgg a ci lolu def ko ñu ngi ci wo ñepp nak comme nim ko waxé wa yëmbal parce que yëmbal lañ am tamit moy suñu fierté moy suñu lepp ñi ngi ñaan ñu ñoo jappalé monsieur Thiam wa comme nim koy defee na won fa won ñi ngi ñaan ñepp da si programme 27 28 juillet 2019 si école Mouhamadou Mokhtar fi inshallah allah merci beaucoup. Euh, ma ma ma ma def moom c'est elle qui gère l'administration Euh, d'une manière professionnelle vraiment mu ci depuis octobre ba léegi ànd seeg man ci euh, ci liggéey bi euh, comme ni nga ko waxee rek ne li def ñun caaxaanuñ ci école bi mu ngi dënmal conférence mais tamit danañu maanaam bu ñu amee occasion mel ni ñu wax tamit qualité école bi. école bi c'est un école reconnue par l'État loolu koñ bi yëpp xam neen ko national bi yëpp xam neen ko école bi tamit c'est une école boo xam amna lié ak wa IF bu keur Masar IF ku ko xamul tamit mooy euh, état bi ñu mu sam fofu ñu ñu saytu njàng njàngale mi fii nii ci euh, yëmbal ak ci keur Masar donc euh, composition yépp fofu lañ ko jëlé ji dañuy dem ba IF ñu jël ci composition yi premier trimestre deuxième ak troisième nit ñoo ñu koy jox ñoo ñu koy fournir quand même. kun nga xam kun école bi il est reconnu par état bu nekkon amul lool nonu ñu kon duñ am possibilité dem ba IF di jëli ay rapport d'entrée

comme ni ñu ko doon at yi ci gannaaw ta yaakaar na suñu borom ko def parce que boudé jàngal rek def nañ ko boudé xam-xam rek jox nañ ko boy kon j'appelle à tout le monde euh, ñu nekk ci quartier bi ñu nekk ci Sénégal yépp ñu leen di que né école bi seen école la ubbi ay buntam sa su nekk rek bëgg ñu soxla ñu ngi seen i euh, euh, bëgg-bëgg di waxal na tamit inscription yi ci mois de 2019 2020 commencé na bi nga ñëwee dañu fekk xalé bu jigen bu yaru bii bu am ëdëb

11 euh, 40 ma bàyyi ko moom tamit joxe numéro inshallah euh, wa sama numéro 77 322 50 49 mom boo si wootee di nga ma jot incha allah. acca macha allah kon sang bi ñi ngi woo waa Sud waa Yëmbal Nord wa Sénégal bit Sénégal lépp né le 27 28 fi mo ay fi momadou Mouta moo aaye merci beaucoup.